di waajal ca na mu waree li nga xamante ni nag moom moo di bés bi ñuy màggal liggéey ci àdduna wërngal képp loole nag moo sabab ndaje bi confédération des syndicats autonomes du Sénégal daal di amal ca yooyu la waxtaan nag ñu daal di ci woo ñëpp lañ ca namm moo di. 46 organisations yu bokk CSA seen i ndaw teew nañ fi ci waxtaan bi nag dañuy dànkaafu état wu Sénégal di ko wax. na gestu ndaw ñi ñu leneen lu si tamit mooy ndaw yi nga xamante ni ñu ngi seen bërëbu liggéeykaay ñu war a mën a gis seen ci bërëbu liggéeykaay yi ñu bàyyi parachutage yi nga xamante ni yenn directeurs yi koy def tappale yi nga xamante ni moo am ci yenn entreprise yi ñu jàppale jeunes yi encadré leen ba kuy liggéey ku nekk di nga am sa plan de carrière di nga mën a xam bu kii poussé kan moo ciy topp yooyu la syndicat nag ñu yàgg joxoñ baaraamu tuuma ñi nga xamante ni ñoom ñoo di njiit yi ndaxte seen i bëgg-bëgg mu mel ni dañ ko doon sànni ci placard yi te yooye nag mooy tax liggéeykat yi mën a amal seen liggéey ca na mu waree waral nag ren ñu dogu dina ci xar seen tànk tubéy yi. ñuy ñaax autorités yu bees yi rek ñu bañ a jël cahier de doléance yi nga xamante ni ñu ngi leen koy jébal ñu koy def seen i tiroir parce que tamit doléance liggéeykat yi moo fi teg autorité yi nañ ko saafara nu mu gën a gaawee parce que newuñu fi di tàngal ceeb. chaque année les mêmes doléances parce que le monde a changé tey dund gi seer na te am am bi demeewul noonu salaire yu bon nañ xeetu bonaay boo xamante ni boo weer deewee balaa le cinq nga nekk di lepp wala di ñaanaatu loolu tamit état wu Sénégal war na ci mën a def ay jéego yu am a am solo bu ñu amalee seen lël ba pare nag lañ ca namm moo di li ñuy xaarandi ci gouvernement bu bees bi ñu daal di koy tënk ci ab kaayit ba seeni bëgg-bëgg